Sall dama gis moom it euh, mu ñëw ci parce que foofu la ñuy ci da doon dem ziyaari ji xam naa bëggoon dem fële ca Mauritanie euh, ñu laaj ko ay pièces am di ko vérifier mbir yi yàgg mujj euh, ab journaliste woo ko ne ko apparemment dañ laa teree génn gu mel noonu a xamal mhm. bi mu gisee yi kii mu mel ne ay instruction la ki ko doon vérifier jotee fële mujj jël ay pièces am delluwaat jàpp ne anam gi ñu ko defee tegul ci yoon ah ñuy salfaañ seen i ak ak seen i yelleef mu mel ni uutewul daal li mu wax ak ñi nga xamante ne jotoon nañoo dem aéroport ñu dëpp leen wàññi leen maa ngi gis ku mel ni Amadou Sall maître Amadou Sall également di yëglu de douze damay tukki ji. Mhm. maa ngi passeport diplomatique donte passeport ordinaire laay laay utiliser. lu demee passeport diplomatique balaa nga egsi. Mhm. waaye daal maa ngi dem bu ma kenn indil daal euh, xuloo yi ko jarut. waaw yëglu noonu day dem pour ca Maroc. ab conférence bu ñu ko fa organiser. Mhm. commentaire. Euh, ñaata yoon la tukki. kan la Macky Sall ah. il a voyagé oh fois mënoo xam mun na am sax. Oh. passeport am xaw naa fees ba baa mu fees mës nga ko yëg. boo ko yëgee problème am na dañ koy wax ne passeport diplomatique boobu du génn Sénégal wala day dëpp. même ah. la. du dem de ak passeport diplomatique bi du ko génne Sénégal. waaw nee na passeport ordinaire. ah loolu moom ña ko ña fa ña fa nekk ñoo koy xool waaye passeport diplomatique moom. Hmm. ña ko yoon dañ koy delloo duñ ko yób duñ ko yóbbooti. Euh, Cheikh Issa la nga ne dafa ne da doon dem ziar ah ku mu neex nga ziar yow mii boo amoon sab sëriñ mu nekk fee ca mbadaxun ah. boo neexee nga dem ziar ko waa nekk fa yow sa sëriñ ña xam nañ ko ñu ngi koy nuyu di ko ziar joobu ju ba ku baax la hmm. li ma joxoon ba tey jeexagul kenn la fa demaat <laughs> d'accord Cheikh Issa Sall dafa am hmm. lu ñu ko joxoon muy CDC caisse de dépôt et de consignation am loo xam ne ay taskatu xibaar dañu ko wax. Mm. mu ne yow yaay dafa porter plant parce que la ko wax du dëgg n'est-ce pas. Mm. kay jiite CDC ci jamono jii di Fadilou Keita. moom mi yor mbir yi moom mu ñu jox lenge yi mu def état des am lu mu fa wax donc foofu mënoo faa génn dem faaw nga toog xaar ñu càmbar te mu c'est valable pour ñeneen ñi nga xam dañoo yoroon keesu état. Ah. faaw ñu càmbar lépp ba xam ne yow mii kat liñ la joxoon mat lañ nga ko. luubaloo ci randaloo ci foo bëgg dem ñu bàyyi nga dem parce que kenn téyewu fi nit ne doo dem man mii su may dem kenn du ma téye parce que amul lu ñu may toppee yow ma woon gafaka état yow mii booy dem barki démboo njaay nga fi seet sa jabar ba ñëw nii kontaan kenn téyewu la avion nga jël mm-hmm. awa yoonu suuf Air Sénégal maa ngi leen nuyu merci beaucoup waa léegi moom Ibrahima Fall Air Sénégal ma ne léegi Cheikh Issa la mm. bu nee dafa doon dem Mauritanie ñu téye ko ne vérification c'est parce que turam dafa bokk ci liste ñi ñu ne bu leen dem bu leen sori dañ leen di soxla à tout te bu ngeen bu leen bu ngeen sorewee bu leen di wër day xaw a metti nit ñi am nañu yeneen mbir yu ñuy wax a def lu nekk di wër nit ñi naan kii fii la aw ak fee la aw. Hmm. wax naa ko démb muy bajaxate moom mais nga xam ne boo ko tuddee ñoom Anita ak ñoom seen clique ga daan euh, campagne Amadou Ba commencé wax yoonu mooy tane gii aw daw. bajaxate waaw na ko génn weddi te di bés yi di ñëw fii ak ñaar ñetti fan di ci xam dara. génn na daw léegi dañ leen di bàyyi ñuy aw Mauritanie Adji Sarr Mauritanie lañ ko awale mu dem hmm. bu ñu xamee ne yoonu kaw yi baaxul yoonu suuf bi la ñuy awale ci gaal gi di léegi bu ñu la gisee duñu la wax ne demal nga toog bañu bañu bañu soxla la nga ñëw da nga yoroon ay responsabilité kenn waxul dañ la fi rek ne la yow doo génn parce que ku nekk am nga droit dem am nga droit ñëw waaye nag bu fekkee ne yoon dafa am càmbar gu mu nekk di ko liggéey hmm. duñu la bàyyi ngay dem bu ko defee ñu def fi mandat dara que di la wër nañu toog fii ñu leen soxlawee. mesure conservatoire. merci beaucoup oui mami xanaa waaw d'accord mesure conservatoire nañu xaar yu mel noonu waaye kuy ziare sa sëriñ nag xanaa dem la ñibbisiwaat war nañ laa mën a bàyyi nga dem ziare ji ko ñibbisi am de. waaw. teg teg ko teg ko fi teg ko fi teg ko fi ku bokk ak ku yóbbu pare naa tontu naa pare ah ah d'accord mo moomu waaw passeport bi lay wax ah bu mu yóbbu passeport passeport diplomatique bi na fa dellu waaw teg ko fi fi nga koy bàyyi dem. ah loolu la ci dégg waaw passeport ah, koy teg booy dem voyage. <laughs> passeport bi daa mënut a dem bu ko yóbbu teg ko fi. Ah, <laughs> te confirmation de bii moom. ordinaire <laughs> bi dem ah. léegi ziare sa sëriñ nag. ah. ziare sa sëriñ ca Nimzaat. ah waaw wala ca. ah comme xañ nañ fi nit julli ji àjjuma te àjjuma jumaa ji soriwul. te du bu dee yoon war naa mën a tere nit mu dox dix pas dem ci jumaa ji jumaa ji julli kay mm. kay sax fa jëm daa sori mm. waaw mm. waaw te julli bi moo gën a yomb mm-hmm. mën nga dëgg si te kër googu nag ci yow da doxantu normal dañ laa ne jëw territoire bi mënoo fee génn mais kee dañ ko barricade buntu këram jumaa ji mënu faa dem ah, waaw waaw mu rek et Euh, c'est pas compliqué bu ñu saytoo mbir yi sa loxo set ñu xam ne sa yoon new aussi da ngay la comme tout citoyen nga mën a tukki comme ni mu waree c'est pas compliqué en fait man dama gëm ne interdiction bi ñu teg ci seen kaw du lu ñu war a jël diisal ko nañu baal rek réew mi moo soxla mooy dañoo jëloon euh, alalu réew mi am ñu ko dénkoon ñu am lu ñu waroon doxal gannaaw loolu ñu bëgg a saytu mbir moomu waaw bu saytu jotee nag dañ da ñuy baal rek du du du problème du xuloo du ah waaw uh-huh. c'est pas compliqué <laughs> nañ ñu baal rek ñu toog xaar nañ ñu baal dañ leen koy ñaan ci njekk rek mm-hmm. ñu toog xaar ñu bu ñu xaaree ba ñu def uh, li ñu war a def yépp saytu mm-hmm. ku ci nekk ñu woo la xool li nga yoroon bu ñu ko ba pare loolu dafa neex xam nga réew mu la ne gàcce ngaalaamu dafa neex ah. moo ñu dénk la ba noppi woowaat la nga ñëw toog ñu xool xool xool ne ah wax dëgg yàlla yow day liñ la dénkoon yépp wax dëgg yàlla mm-hmm. ah gisuñu dara loo xam ne lu lubal nga ci su ko defee nag ne la demal ziare sëñ bi géej nga ko gis hmm. du problème loolu compliqué wul ah. waaye yow ñu ne dañoo war a déjà li li li njëkk a suspect mooy yow yaa ngi nekk ci biir réew mi ñu ne dañoo bëgg a euh, saytu def audite ci ñi nga xam ne ñoo géré woon alal réew mi ci ëllëg ci fajar nga takk say bagage naan damay seeti sama sëriñ am tàggoo am nag nuyoo ah tàggoo ah waaw Ah, dem sëriñ moom du lu bees parce que Macky Sall bi ñu ko bëggee jàpp yàgg ràpp dafa daw ci sëñ Baara di jooy waaw waaw ñoom nag dañoo bëgg wax yooyu rek mais yenn yi da ci épargne sëñ bi ba nañ xaar rek yàlla baax na yàggatul gars si ñu gaaw ñu def li war a def parce que am na ñoo xam ne xëy na defuñu lu tax ñu ñu war leen féetee suñ saytoo ba pare ku ci nekk fa nga bëgg a dem ñun soxlawu ñu leen ah seen génn si réew mi dérangé wuñu aussi Mhm. donc nañ saytu li ñu war a saytu ñu ci noppee koppar réew mi képp moo ñor nit ñi waaye du jëmmu nit boo xam ne. Mhm. sa ñu lay denc si biir réew mi daf ñu intéressé. waaw mhm. encore que ku am ay obligations professionnelles euh, ñu lay invité ay conférences yoo war a def ay say prestations. xanaa ñu saytu war na ko mën a yàqal de. ah ñun de li ñu li ñu li ñu intéressé fi moom moo daanelee rek lay tënkee. <laughs> li ñu intéressé mooy dañu la dénkoon suñu gafaka nga yor ko. nga pare delloo ñu ñu gis ne am na lu si ñuul dañ koy leer dangay ngay demam doo dem dañ koy leer. fu mu doon dem Nimzaat. Nimzaat waaw. Ah. Eh, eh, Kémo nee mu dem benn tali ca xayma ba xayma mhm. fa laa doon ñëw. Mhm. ah mbokk fa laa doon ñëw. Mhm. xam nga man représentant eh, bi. si ñëw. xam nga man. sama papa dañ ko seexal. dañ ko seexaloon Cheikh Basirou Mar ki ko seexal Cheikh Sidil Xayel di doomu Cheikh bu nën na nekk foofu ca Nimzaat da doon dem sa korité di dem. wa xeert wa xayaati. ñoom dañ doon dañuy wër dañuy def tournée au niveau du Sénégal donc chaque année xalif bi dafay ñëw fii toog mm. bu mu yàqamte day ñëw Mbour day ñëw euh, Pikine fii day dem côté Dakar day dem tout les tout les région du Sénégal dina fa jaar donc jarul yàqamte bu dee loolu rek la bëgg moom mm. <laughs> je pense que amul argument bu ko war a génnee réew mi mais encore une fois nañ toog moom nag ci ci armeel doomu sëñ bi la doon dem waaw la mujj yàq oho mani Ngoné yàllaa ngi fépp non non danañ dem ku ñaanal leen. waaye yow na ñaan fii day dem. <laughs> yàllaa ngi fépp. <laughs> fépp la nee la gën a jege sa buumu xol. te yàggatul dara bu fekkee deful. dara day def jarul yaa xam te et d' autant plus que voilà quoi. fi mu ne te moom sax déjà. bi muy bi ñu ko njëkkee intercepté lan la wax mu ne oto. problème oto la amoon. ba bi ñu àndee mënaan naa ko. ci ne man sama oto bi ma am nii. waaw naa ko yóbbu foofu ndax ah, sama numéro technicien bi laa ko bëggoon